d'abord foofu laay commencer sax parce que loolu yàgg naa di ko di ko ñaawlu parce que un ministre de la république bu ñu la tànnee ci seize millions de sénégalais dénk la alalu réew mi normalement war nga caa def lu xamante ni kenn warul laa jéppi bul bul tas yaakaaru ki la dénk loolu mosuma ko nangu même bu ma bokkee bennoo bokk yaakaar rapport yi nga xam ne teg nañ ko ñëpp ñi ci impliqué ñëpp dañ war dem leeral man loolu laa gëm parce en dehors de politique dama nekk citoyen sénégalais bokk ci ñi nga xam ne ñi ngi participer ci réew mi di di fay impôt di fay leneen ak leneen kon bu ñu la dénkee euh, président de la République wóolu la dénk la du si juddu du si lenn mais daf la dénk am si yow yaakaar pour nga liggéeyal réew mi da ngaa war a dem liggéeyal réew mi boo liggéeyal réew mi nag euh, erreur munul ñàkk mais bu ñu la bu ñu la euh, interpellé ci benn dossier ne ni nga def jaaduwul amal réponse bu responsable nga def ko loolu dama ci woo sama mbokk Benno Bokk Yaakaar yëpp nga xam ne président dénk na leen. beneen bi kon gis nga ni côté boobu am na am na. parce que am am am na fayir parce que man toujours samay débat dama naan li président def ci réew mi fi mu ko fekkoon 2012 ak fi mu ko indi 2023 tey. kenn ku nekk lañ la dénk war nga caa wax lu tax sénégalais yi bëgg président de la république parce que boo demee ci àll bi ci zone rurale yi nga dem yépp xam kenn doo dégg musoo dégg benn opposition bu taxaw di attaquer président de la république ne amul bilan. liggéeyul mosoo ko dégg yeneen failles yi nga xam ne yëpp am nañ ñi ko koy yóbbee mooy peut-être ñenn si ñim dénk nga xamante ni peut-être munuñ communiquer te demuñ pour leeral euh, euh, liggéeyu président de la République parce que am na débat yoo xam ne ñoom moomeewuñ ko ñun ñoo ko moomee ñun ñi nga xam ne dénkaguñ ñu ñoom ñiñ dénk li ñu waroon buñ toogee ci plateau ñu wax lu xam ne askan wi danañ ko mën a dégg xam li président def ak président fi mu yóbbu fi mu jëmee réew mi. et malheureusement c'est boo leen toogee ci plateau yi li ngeen war a wax doo leen ko wax. parce que duñ ko wax nañ ko nangu nañ ko nangu nañ ko nangu tey Pastef si mm. Pastef et là aujourd'hui am ngeen ci part de responsabilité. bu mag a mag a mag dama ne man loolu duma ko daw man dëgg moo ma ñor dama ne la ñi nga xam ne ni ay responsable lañ ñu dénk leen bu ñu toogee ci palaato yi nañu wax fi président fekkoon réew mi ak fi mu ko indi secteur bu nekk lañ ca def ñu wax ko askan wi mën a gën a bëgg président de la bi mais beneen bi communication moom problème communication moom affaire dañ ko am loolu moom nañ ko naw